aouzu billahi min alcheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen baalu àq bu baax a baax a baax di rafetlu itam ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di Firi Guent TV officiel ñu topp ci Facebook Firi Guent officiel ñu ngi leen di nuyu ñi ñu topp ci TikTok ñi ñu topp ci Instagram yëpp ñi ngi ndokkeel ñëpp te di leen baal wax di rafetloo it ànd bi tey dellusiwaat na ak yéen ci beneen bunt bu yaatu muy gént gis gaynde ci biir gént defoon naa ci vidéo waaye vidéo bi complet woon li tax itam gaynde dafa nekk bunt boo xam ne dafa bari wuute lool ci ñuy jàngale firi gént moo tax ñu ne woon nañ dajale rek liñ ci càmbar ba pare joxe ko mu nekk wax ju xam ne mënees na koo takk mënees na koo jàpp balaa ñu ci ñëw ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé ku am laaj mën ngeen jaar ci yoon bi nga xam ne ci la ñu wax mooy envoyé message vocal whatsapp ginnaaw boo duggee ci suñu page bi da ngay dugg nga bind titre li nga gént da ngay bind rek dina la jox vidéo bi ma ci def su dee def naa ko su dee def ma ko wala yow yaa taaya xool da ngay def audio whatsapp mais da ngay envoyé 500 francs 500 bi wéeb wala orange mu la ci suñu numéro bi ñu ngi ñaan ñu dimbali bu baax a baax a baax 500 euh, bari na bariwul yaakaar naa moo gën a moyen chair serveur numéro serveur bi su boobaa dafay xaw a gën a compliqué euh, ci man ak yéen ñëpp ñu ngi koy ñaan rek. vidéo yi li ci aju dafa xaw a bari moo tax euh, bunt bu am solo la mooy gént gis kaynde waaye bunt bu bari ay wuute la ñun nag dañuy joxe rek li nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi wax loolu lañuy joxe. lépp lu laaj ay tafsilaat maanaam lu laaj ay leeral danañ ko joxe incha allah ki njëkk ki njëkk a joxe mooy Ibnu Sirin Ibnu Sirin li ëpp ci li ñuy firi ci li ñuy jëf ci vidéo yi ci téereem lañ ko jëlee ñun teewul nag danañ jël ñeneen liñ wax moom lii la wax ci gaynde daf ne gaynde gis ko ti gént léegi day firi wér ci feebar wala mucc ci balaa maanaam feebar boo xam ne dafa xew ci dëkk bu comme fi contexte bi nekk ñu ne feebaru Covid dafa am nga gént gis gaynde ci biir jamono booba léegi rek dana firi mucc ci balaaja kañ lay doon détails yi dina ko leeral léeg mu ne dafa firi mucc ci pexe ab noonu maanaam nga am noon bu saay-saay bu lay fexeel yàlla musal la ci doon ci moom kañ lay doon dana ci ñëw léeg dina dana firi mucc ci musiba musiba ju ñëw ci yow yàlla fànq ko gis gaynde léeg dina ko firi dina ñëw ci détails yi léeg-léeg danay firi yow ci sa jëmmi bopp ngay dugg ci mbir moo xam ne wala nga nekk ci mbir moo xam ne demoo ci ak courage maanaam amuloo fit amuloo njàmbaaru dem ca yii yëpp moom nee na gaynde dana ko firi ci gént dana ñëw ci détail ki ñu wax imaamu Nabusi si defe naa ñu bari xam si laa bëgg a wax ci wàllu firi gént daf ne gaynde gis ko ci gént léeg-léeg dana firi tooñ kilifa goo warul tooñ wa illaa nit dana la tooñ jaay la doole ñaari maanaa yëpp dana ci am léeg mu nekk yow yaa tooñ kilifa goo warul tooñ maanaam ku mel ni kilifa diine wala buur wala nangam ci ngay dégg ñoo xam dañ naan damaa gént gayin dàqee nañ da ngaa tooñ wala <laughs> lii détails yu yaatu la waaye incha allah xam nga Sénégal lan la ñuy nit ñi di firee gént léeg gaynde ci gént day firi faatu moom loolu la wax muy imaam An-Nablusi ba tey faatu ca contexte ba jamono yi nga ko géntee lu yàggul dara yal yàlla guddal fanu ñëpp léeg-léeg dana sa noonu bu lay xaar xaddi léeg-léeg dana ko firi ba tey maa ngi ci ibnu shahin mu firi noon bu noon bu am kàttan waaye dafay échec ci pexem wala boog mucc ci ay coono gi xat-xat euh, an nablu si lii la wax am ku ñu wax ibnu shahin ci gaynde li tax nag may yaatal wax naa ne gaynde mooy bunt bi gën a bari lu ñu wuute ci gént moo ci gën a bari ndax dafay feeñ ci dund nit ki lu baree bari moo tax ibnu shahin dafa ni dana firi noon bu am doole waaye bu la jege maam noon boo foogeewul neen dana ko firi léeg-léeg dana firi euh, am am am responsabilité walla nekk sax président gént gis gaynde léeg-léeg neen dana ko firi maanaam amee responsabilité bu rëy wala ndombal tànk ca nguur euh, dëkk ba nga nekk ministre la député la wala directeur la wala wala wala léeg-léeg mu firi yow sax mën nga koo nekk dana ñëw ci détails yi léeg mu firi ragal buur maanaam nga nekk nit ko xam ne ñeme woo léeg-léeg mu firi balaa di wàcc kon lii léeg-léeg dana ko jàngale moom ci yi kon ñu dem ci tafsir bu njëkk bi bi nga xam ne liir nañ ko ci yenn téere yi bu njëkk mooy dangay jàpp waxoon naa la gaynde léeg-léeg dana firi tooñ nit tooñ kilifa wala kilifa tooñ la wala nit tooñ la jaay la doon loolu mooy li ñuy wax da ngaa tooñ wala yi loolu kenn rek la koy firi loolu mooy jànq xale bu jigéen bu amul jëkkër balaa ñuy continuer ci vidéo bi defe naa kii butéelu saafara la cangat gu am doole cangaay bu amul moroom ci wàllu ubbeeku ci wàllu wërsëg ci wàllu bayre ànd ak moromam bi ñu leen daan war moom itam ci wàllu muslaay ci kaaraange jet liggéey jafe-jafe rab surtout ku mu sonal mën nga jokkoo ñun ci numéro yi képp koo xam ne sa gàllankoor loolu la ay rab ak seytaan yeeg yooyu mën nga jokkoo ñun incha allah bu dee jigéen joo xam da nga yéex a sëy bëgg am jëkkër mu të kii téere bu ñuy liggéey la ñu di ko tuddee du tilim mu ngi ci biir pot bi sunguf la liggéey ko ak ay mbir soo ko jëfandikoo takk ko incha allah balaa yàgg yàlla mën na la indil borom kër bu soobee yàlla ci kàttan kii sunguf la bu ñuy liggéey def naa wan nan leen ko ci yoon sunguf la bu liggéey pour jigéen joo xam da ngay sëy yéex am doom ci sa sëy wala nga daan am doom ba ci biir nga taxaw mën nga ko jëfandikoo sunguf bu ñuy togg laax la boole kook yennati ayat ci alquranul karim incha allah boo ko jëfandikoo yàlla mën na la indil njaboot ku ko ci soxla wala nga soxleel istixaara mën ngeen jox ko ñun ci numéro yi ngeen jàkkaar loolu incha allah bu dee wàllu gént na nag ñu wax ne da ngeen di woot da ngeen di audio whatsapp incha allah kon ñu continuer ci vidéo bi fi ñu tolloon dafay firi danga da tooñ kilifa wa illaa dana am ku la tooñ jaay la doole wala léeg-léeg mu firi njàqare ak i xat-xat ci yow mu nekk gaynde gu mag bu mu nekk gaynde bu ndaw bu dee bu ndaw dafa am ay détails dinaa ci ñëw jànq gént di lekk yàpp gaynde dafay firi am loo bëgg maanaam nga bëgg dara danga ko am dangaa bëgg benn diplôme danga ko jot danga am koo bëgg a sëyal dana sotti dangaa bëgg tukki dana sotti dangaa bëgg dangaa bëgg dina sotti lu mën a doon foofu mooy da gént di lekk yàpp gaynde wala boog mu firi mucc ci ay problème bu dee di la caa fekk jamono yi ngay gént gént ma fekk li ay ci xat-xat ak njàqare day firi loolu dana jeex loolu benn la ñaareel bi koo xam ne dangaa gént gaynde di la dàqe bi la gaynde gi dàqee nga daw ba dugg ci kër wala rawat na nga dugg daw ba dugg seen kër kii ñëpp ñoo ko bokk baaxul ci gént waxoon naa la gaynde léeg-léeg dina firi feebar loolu day firi feebar dina dugg ca waa kër ga maanaam feebar dana am feebar bu dugg ci kër ga te dana bari ñu mu lor ca feebar ba loolu leer na wa illaa yow da am feebar bu la dab bu mettee metti mooy gaynde dàq ji la ba nga santi dugg ci seen kër baaxul waa kay léeg-léeg ba tey ci bi ma nekkoon gaynde dàq ji la ba nga dugg fi seen kër dina firi da nga am danga am lanteeg buur da am lanteeg buur ba jafe-jafe fekk la ca wala boog tar-tar wala xat-xat yu bati yu métti dana la dal kon li nga jàpp gaynde dàq la ba nga dugg seen kër baaxul ci gént baaxul ci gént bu da ngaa gént gaynde dàqe ji la wala nga gént gis gaynde sax waaye nga war gaynde gi toog ci kawam maanaam nga war gaynde comme ni nga miine war fas war giléem war mbaam yow waroo fas waroo giléem waroo mbaam waaye gaynde ga ngay gaynde nga war bu dee da sentir gaynde gi dafa nekk gaynde gu loof gaynde gu néew kàttan gaynde gu mënul dara dafay fiiri da nga amee ndombal tànk wala da nga amee responsabilité waaye da nga nekk kilifa gu dëgër bopp wa illaa da nekk koo xam ne ña nga yilif duñ la déggal wala du ngeen déggoo maanaam gaynde gu gaynde gu loof gu tuuti nga sentir mu màgget lool surtout kooku loolu lay firi euh, gént gaynde gajj la wala nga gént mu matt la baaxul ci gént day firi lor wala njàqare lu rëy loo xam dana jóge ci buur maanaam danga nga am lante yoon ba jëlee ci aw lor wu métti kaso mën na la cee fekk leneen ak leneen mën na cee fekk baaxul wala boog ngay liggéey ci place place ba ngay liggéeyee da nga fa am jafe-jafe yu métti ak sa directeur ba jógee fa wala jafe-jafe fekk wala nga dëkk ci kër yaag borom kër da ngeen am problème da da nga am lor goo xam dana jógee ci borom kër kon nga jàpp gaynde màtt la wala mu gàjj la dafay firi benn lor gu jógee ci buur wala ci sa place liggéeyukaay wala fa nga dëkk kon lu ci mën a doon baaxul gént gis gaynde muy dugg ci kër nga gént gis gaynde muy dugg ci kër lan lay firi baaxul ci gént dafay firi ci dëkk laa bëgg wax gaynde di dugg ci ab dëkk day firi balaa dana tàbbi ci dëkk ba kon baaxul ci gént gaynde gu weex nga gént gis ko ci gént baax na ci gént day firi mën nga amee ndombal tànk wala responsabilité bu rëy buñ la dénk màttu la nag def la dara gaynde màtt la léegi-léegi ñëpp ñoo ko bokk kooku yi ma waxoon fee léeg-léeg dina ñëw firi dëkk naafeq bu bon boo xam ne dana la mu màtt la wala mu gàcc la naafeq bu bon boo xam ne mën ngaa jëlee ci moom lor kon yii yëpp ci gaynde la bokk koo xam ne da gént di xeex ak gaynde xeex ak moom lan loolu nga gént rawatina gaynde gu am kàttan dafay firi jëflanteeg buur xeex ak buur wala am lanteeg yoon wala am lanteeg yoon ay ñol-ñol su fekkee yëg nga ne yaa man gaynde gi ci biir gént gi ci biir xeex gi day firi da nga am jaar-jaar ak buur waaye da nga am ndombal tànk lu kawee ci dëkk ba nga nekk kon baax na ci gént bu dee da nga gént man gaynde gi rey ko wala yu mel noonu bu boobaa dana firi am am da am jaar-jaar ak yoon sonn waaye danga nga amee ci ndombal tànk lu rëy benn poste bu kaay wala directeur wala place liggéeykaay bu la ñëpp di coow. ñenn ñi sax àgg nañ ci waxoon naa la ko ca kaw ne léeg-léeg mën ngaa sax nekki buur mën ngaa nekk président ci dëkk ba nga nekk. ki doon wax ne gaynde léeg dana dina fi di nekk buur foofu la sukkandiku dem na gént jafa deflante gaynde bara ba mën ko ci biir gént gi dana firi mën ngaa bari ay jaajar comme li xew ci dëkk bi rek. nit ku nekk ci wàllu politique di ci yëngu ñi lay tëj kaso ngay jàppante jaar-jaar bu nekk nga jaar fa ba yàlla mën na laa dimbali dëkk ba da nga ko yidi fi mooy gént di xeex ak gaynde gu am kàttan ba mën ko ci biir gay gént gi wala rey voilà gént gaynde dàqe ji la ba mujj gi nga sentir ne mujj ngaa rey gaynde gi ba lekk ci yàpp wa baax na dana firi ndombal tànk lu kawe waaye léegi dana firi xaalis bu bari kon baax na ci gént Euh, waa kay gént xeex gaynde ba dagg bopp bi dana firi mucc ci pexe noonu mucc ci saay-saay waaye am xéewal ak palaasu liggéeyukaay bu kawe gént ray gaynde def naa waxoon naa ko ci kaw danay firi amee ndombal tànk wala responsabilité baax na ci gént bi ci des mooy euh, euh, voilà gént rey gaynde ci ñiy jàngale ñoom am na ci koo xam ne wax na ne dilaalaat yi maanaam yi muy tegtale bokk na ci am ndombal tànk lu rëy waaye léeg dina firi xéwal gu bare bari wala alal ju bari joo xam ne suñu borom mën na la koo dénk ci sa dund voilà euh, voilà kon yii yépp yu ñu yu ñu wuute la ci ñi nga xam ne ñooy ñooy jàngale gént war gaynde gént war ko kenn ci ñoom wuute na ak kama njëkkoon a wax kii dafa wax ne war gaynde kay li muy dafay firi post bu kawee ci daraja ci liggéey waaye dana firi léeg-léeg xëy ba xëy ba mooy amee nit koo xam ne danga am da nga am xaw ma charisme laa ko war a tuddee wala caractère boo xam ne nit du la du la du la du la ñeme kenn mënut am fu mu jaar ba yàpp la yooyu yëpp dana ko firi. gént di yar ay gaynde nag da gént yar gaynde yu ndaw nga gént ko yar dañu wax ne mën ngaa dox ci sa dund ba. jàngal doomu buur wala doomu ministre wala doomu kilifa gu amee ndomb tànk ci si dund mën nga koo jàngal wala mën nga koo yar walla sax man bu dee góor mën nga koo mën ngaa am soxna boo xam day nekk doomu kilifa gu mag moom ci mën a doon baax na voilà euh, waxoon naa la fële gaynde dàqe la ba nga dugg si kër dana firi dëkk kër la ma waxoon ci kër waaye léeg gaynde di la dàqe léeg feebar boo xam feebar boo xam dafa am ca jamono ba maanaam comme fii ñu toll nii la ma doon wax ci kaw ne la kenn ci ñoom nee na léeg dina firi feebar rawatina feebar boo xam ne dafa nekk feebar bu bu xew comme virus bu wàcc wala virus bu wàcc ñëpp di ko am nga gént gaynde di la dàqee léeg-léeg mu firi na virus boobu dana la dana la dab kon bu mu ci mën a doon ci yooyu baaxul ci gént ngay jàpp rek gaynde gu ñuul am couleur bu ñuul ci gént baaxul day firi xibaar bu naqari baaxul ci gént baaxul ci gént gént gaynde ci jigéen joo xam ne yaa ngi ci néegu sëy am nga jëkkër di sëy gént gis gaynde ci sa kër day firi noon bu añaan bu la jege te mën na laa lor kon baaxul ci gént boo géntee war ko ci jigéen buy sëy day firi wërsëg ak alal gaynde ci biir kër nga gis ko muy dugg sa kër te jigéen bu nekk ci néegu sëy day firi noon buy dugg ci sa kër boo xam ne dana tas sa sëy wutti ñaam gént gaynde gajj la ci jigéen boo xam ne yaa ngi ci néeg say day si firi noon bu la jekku noon bu la jekku wax nañ nag ne bu fekkee gajj bi daa mag wala mu métti lool tolluwaayu métti bi noonu la doole pexe mi toll waaye amul solo li am solo mooy gaynde matt la wala mu gàjj la ci jigéen ji nekk ci néegu say day firi noon bu la jekku jigéen ji nekk ci néegu say gént gis gaynde daa am ñaari wax yu ci bokkul ñaari borom xam-xam yu ci wuute wala ñi ëpp ci borom xam-xam yi sax ñi dañu wax ni jafe-jafe ci ëmb day firi coono gi xat-xat ci sa ëmb ñenn ñi déedéet axe bi la day firi mucc ci coono ëmb waaye li gën a wér mooy gis gaynde bi ci jigéen ci ëmb fi muy firee coono ëmb ak xat-xat mooy nga gént mu lay xos wala mu lay dàqee wala mu màtt la mais bu dee da koo gént gis nii day firi doom bu am njàmbaar doom bu am kàttan ci biir gént loolu mooy li gën a sax ci wax gaynde bu ndaw ci jigéen joo xam ne am nga danga nga ëmb euh, voilà maanaam ñenn ñi dañoo wax ci gaynde gi fi ma tolloon ci jigéen bu fekkee gis nga ko ni léeg dina firi doom bu góor waaye doom bu am njàmbaar am kàttan day firi bu fekkee danga gént di yar gaynde ci jigéen ji ëmb lan lay firi day firi yow ku am yitte ci yar say njaboot nga baax na ci gént maanaam ko jigéen ju am cawarte ak njàmbaar ci sa yaru doom nga ma ñëw ci góor góor gént gis gaynde léeg-léeg dina firi noon bu iñaan moom it kazalika dëkkaale léegi léeg bu danga ko war ñëw naa ci détail gént soowum gaynde ci góor ci ci góor soow ku ne xam na ko soow xar soow meew sew nag nga gis soow ñu ne soow mii soow gaynde la gént nag lu ne am waaw lu ne la nit di gént voilà lan lay firi day firi maanaam góor am nga soxna nga gént gis soowu gaynde day firi amaat beneen soxna loolu wax nañ ñenn ñi ne déedéet dana fii di amaat beneen soxna waaye soxna soo xam ne jikkoom baaxul jikkoom rafetul la doyam foofu kon ñenn ñi dana soxna ñi des yokk ci ne de soxna da nga amaat beneen soxna kay waaye soxna su doy waar ok loolu wax la ci gaynde ba tey gaynde bu ñuul ci góor bu ñuul ci góor baax na lool su la màttul gajju la nga ko gént gis nii rekk dana firi responsabilité wala ndombal tànk lu kawe moom it kazalika bu dee gaynde bu ndaw nga gént gis góor day firi ëmb ci sa soxna jigéen góor gu gis gaynde gu ndaw day firi ëmb soxna jigéen bu nekk ci néegu say gis gaynde bu ndaw day firi ëmb baax na kon kazalika voilà gaynde bu ndaw ci koo xam ne amuloo jëkkër wala amuloo soxla amuloo soxna day firi sëy gaynde bu ndaw doomu gaynde laa wax voilà gaynde gu la rëbb di la seet waaw nga di ko gis te gisoo ko nga gis ne gaynde te gisu la boog ngay gis ne gaynde gee man lay seet yow xam nga ko ci biir gént muy dugg fii di jàdd di la seet te gisuloo ko te gisu day fi di mucc ci pexe noonu walla mucc ci saay-saay ala xaalin lii yëpp lu ñëw ci gaynde la walla yii daal ala kulli xaalin mooy yi nga xam ne indi nañ ko tey ci benn partie pour bañ mu jaxasoo ci wàllu gaynde incha allah yeneen détails yi dina ci ñëw parce que dañoo bëgg di ko jël bunt par buntu mu ci jeexal mu nekk lu leer nañ ci ñëpp ñu ngi leen di ñaanat ngeen abonné partagé wa ma zalika ala llahi bi azizin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam nga ban problème la am. Hmm. dama jaxase feuille